Euh, euh, euh, ñeenti bakkan bokk des ci mu ngi nag loo xamante ne si lu mitti la woon ci sunu takk der yi ndax takk der yi ñoom ñoo defoon accident boo boobule dañoo demoon rek ngir waajal li nga xam ne moom mooy jongante palub njiitu réew bi nu dëkkmaloon te jàppoon ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 Fatou Kiné la ñuy àndal ci li ñu fàttaliku bésub tey jile. fukki fan ci weeru février 2021 Sénégal l'armée bi jëlaat base. bu mouvement des forces démocratiques de la Casamance euh, ci bëj saalum réew mi fu soriwul dara frontière bu Guinée Bissau gannaaw nag ñaari ay bis yu ñu doon xeex Casamance lu jege ñeen fukki at mbaamu ëpp ko mi ngi nii ñàkk déggoo am ci diggante mouvement yu MFDC ak nguuru Sénégal suñu gaynde yi ci wàllu football fukki fan ci weeru février 2002 la ñu nekkoon vie champion d'Afrique gannaaw nag bi ñu daanoo ci kanamu euh, Cameroun euh, ci tir au ba mu ngi nekkoon ci réew yi fukki fan bu ne ci weeru février ci la mbootaay xeet yi di màggal euh, bëccëg bi ñu jagleel légumineuse bu ñu ko déggee nag muy xeetu garab yooyu ci la yu mel ni lanti ariko di jóge garab yooyu nag ñu ne ba mu amee léegi ëpp na ay millions yi million ci at mu nekkit garab yi ñu njëkk a seetlu ci biir kër yi ñuy taxaw tey ci accident bu metti bi amoon fukki fan ci weeru février atum 2019 euh, ak euh, benn kaar bu këpp woon ca dëkk ba ñu naan Taïba euh, diggam ak Sédhiou toll ci ñaar fukki kilomètre ak juróom mu nekkoon ci jamonoy campagne électorale bu faluk njiitu bu Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 accident boobu kaar ba yaboon ay gendarme ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan fukk jële ci ay gaañu gaañu Abdoulaye Diédhiou taskatu xabaar la euh, ci yéenekaay bii di l'Observateur mooy dellusiwaat ci accident bu metti boobu. li ñu mën a jàpp mooy que nekkoon na nekkoon na bés bu tiis lool si suñu takk der yooyu di waa gendarmerie nationale ndax keroog ci bés ba la ñàkk lu toll si ñeenti gendarme alors ñi nga xamante ne nag ñoo loolu ci ci l'accident boobu gendarme yooyu ñu ngi bokkoon ci benn kuréel kuréel bi ñuy duppee ci gendarmerie l'escadron de surveillance et d'intervention de Ziguinchor euh, ci jamono ja nag li nga xamante ne jotoon nañ ko taataan ci ay xibaar kii lu a jàpp mooy que ki doon dawal oto sandarma ya ba mu yegsee si benn virage bi nga xamante ne moo nekk ci euh, Taïba ci la woto bi daal di këpp ba indi jëy boobu nga xamante ne ñeenti sandarma da euh, ñàkk seen bakkan fukki blessé nekk ci waaye gannaaw ga nag at na beneen beneen euh, xibaar bi nga xamante ne moom li mu li ñuy li mu jot a wax mooy que ci doon dawal woto sandarma ya benn moment dafa doon jéem a moytu benn camion citerne ci gannaaw ga nag la woto bi mujjee këpp indi jëy bi nga xamante waaye li ci mun ti doon li ñu mën a jàpp nii mooy que ñii nga xamante ne loru lañ si euh, l'accident boobu dañu bokkoon ci benn dispositif sécurité bi nga xamante ne ñoo doon saytu kaaraange Chérif muy loolu xewoon ca Taïba atum 2019 ñeent ci suñu ay takk der malheureusement ñàkk seen bakkan ci accident te dañoo demoon ngir waajal euh, jongante palub njiitu réew bi ñu namoon a amal Euh, ci weeru février boobu jiyee xewee euh, loolu atum la woon. non campagne électorale parce que jamono yooyu président dafa waroon dem dans le sud ci campagne ñoom ñu waroon a participer ji. Mhm. ñi indi kaaraange gi foofu yàlla def nag seen oto daal di këpp à cinq kilomètres de Sédhiou. Mhm. amoon nay blessé ñeent alkaati yi kon ñàkkoon ci seen bakkan muy loo xamante ni lu tiisoon la. Mhm. et puis rendre na leen hommage également ci caserne Samba Diéry Diallo bi ñu leen fi indee ngir liggéey bi Euh, à l'époque nag waxoon na ni que même ni mu doon moytoo oto bi rawatina que même ci virage bi moom moo taxoon affaire bi daal di saaraani ba oto bi daal di def ay tonneaux yu bëri. Mm-hmm. ñu ñàkkoon ci seen bakkan président sax boo dina moon suspendre woon na fi meeting yi ngir moom it euh, dem xool. fi nekk ak yooyu. Mm-hmm. Euh, delloo leen ci ndukkal ñu ñaan rek yàlla sunu borom daal leen di xare aljana. Mm-hmm. très bien Malick. waaw mu nekk événement bu tiis bu metti boo xam ne wax dëgg yàlla keroog ñëpp c'était la consternation. ñëpp sëngëm. Mhm. Euh, président Macky bi mu jógee ci euh, meeting bi nga xam ne moom la mujjee def euh, la annoncé nouvelle bi. Mhm. mais xam la ni ce n'est pas en rapport xëy na ak moom li nga xam ni moom la doon yëngu muy wàllu muy wàllu campagne bi mu nekkoon. Mhm. mais l'un dans l'autre ce sont des soldats qui sont sur le champ de bataille. donc honneur à eux respect à eux. mais toujours rek lu may faral di wax yu mel Euh, en général li ñu ciy regretter rek mooy bu ñu xësee genn àdduna. Mm-hmm. Euh, sur le coup y a l'émotion ku nekk di nga wax sa intention yu baax. Mm-hmm. mais bu ñu xësee ba dëddu njaboot yi nga xam ne moom lañ fi bàyyi. Mm-hmm. duñ leen di faral di bàyyi xel. te lu am solo la parce que ñoom ñëpp c'est des soutiens de famille ay yaakaar ci ci famille yu yaatu la ñu bokk. donc bàyyi fi ay njaboot bàyyi fi ay doom bàyyi fi ay soxna. donc ñu mel noonu aussi war nañu euh, di leen tool seen ay njaboot. métit métit bi dal ci seen kaw gën a oyof. Mhm. muy euh, muy autisme bu bu daloon ci euh, suñu euh, réew mi ci atum 2019 la woon ak suñu takk der yooyu lee ñu leen di ñaanal borom bi xale leen aljana te jéggal leen bépp bàkkaar waaye itam teg ci njaboot gi loxo njaboot googee ñu ngi leen di bàyyi xel tey bi ñuy fàttaliku ñenn ci seen i ñooñ sa teew jot na ba tegal ñaar fukki simili ñu dem ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Serigne Cheikh. ay xibaar yi euh, Cheikh Tidiane euh, fu ñuy dem Mbacke wala Mbacke waaw aja ñu dem. Mhm. Mbacke ak. Mhm. Euh, tension bi nga xamee ni ña ko fay nemmeeku depuis démb tey nag mu nar peut-être que mu nar a dégénérer fekkee li ñuy xaar yëpp dina fa am ndaxte meeting bi nga xamee ni dañ ko fa namoon amal ñoom waa Pastef préfet bi daf ko tere waaye seen njiit li di Ousmane sonk moom nee na dina fa dem dina amal euh, meeting am comme ni ko responsable yi nga xamee tamit ñoom ñoo nekk foofu ca Mbacké euh, waxee di xarlu décision bi nga xamee ni autorité administrative bi euh, jël na ko kii di Ousmane sonk sax. te nee na dina dem ca Touba fa lay jullee àjjuma su pare euh, jubali euh, Mbàkke ca meeting boobu nga xam ni dañu ko tere te ci dernière nouvelle yi tamit euh, ki di Serigne Cheikh euh, Thioro Mbacké ak i tamit ñi mu àndal nga xam ne démb dañu leen tegoon loxo euh, ca ba ñu doon manifester ci journée bi ñoom mujj nañu leen bàyyi ñu ñibbi seeni kër ci guddi gi leneen ci xibaar ajo ay décision yi nga xame ni wàcc na démb ci conseil des ministre bokk na ci Mame Boye Diao nekkoon directeur des domaines moom nag yóbb nañ ko fële ca caisse des dépôts et consignation mu wutu fa kii di Cheikh Ba euh, ki di euh, Mamadou Guèye euh, moom nekk ci Pikine nekkoon président AS Pikine nekk ko sax ba léegi moom mooy wutu ki di Mame Boye Diao ca boppu direction des domaines des inspecteur directeur des impôts et domaines tamit di Bassirou Samba moom tamit jëli nañu ko ca bopp structure boobule ki di Abdoulaye Diagne nekk inspecteur des impôts moom moo ko fa wutu lu ni tamit lañu ñu nemmeeku ca délégué général général au pèlerinage de la Mecque euh, Abdoul euh, Kébé euh, jiite woon ko foofu nag ko fa wutu di Aboubacar Sarr moom mooy jiite léegi délégué pèlerinage à la Mecque ci wàllu culture festival Dakar Musique Expo tijji tey ji démb sax ci guddi gi mën nañ ko jàpp ci minuit Euh, le conseil yu njëkk ya commencé na ca institut euh, français Léopold Sédar Senghor loolu nag dina dem ba fukki fan ak benn ci weeru février euh, bi ñu nekk ci ñu sukkandikoo ci ki nga xamee ni mooy promoteur bi di Doudou Sarr ci fàttali rek ni Youssou Ndour moom mooy parent festival Dakar Musique Expo boobule ñu jeexale ko ci wàllu tàggat yaram ak reprise championnat bu Ligue 1 bu Sénégal douzième journée bi ginnaaw. CHAN bi nga xam ne gaynde yi jël nañ ko ñuy dooraat championnat bi fii ci Sénégal bokk na ci euh, affiche yi euh, jàmbaar US gore boobu ëllëg lay doon euh, samedi fële ca Saly Dakar Sacré-Cœur moom mooy dalal Génération Foot ci samedi yi Teungueth FC Stade Mbour Jaraaf Guédiawaye Football Club ci dimanche gi nag Casa Sport dina dalal Sonacos fële Ziguinchor ca Ndar Linguère di dalal Seneps bu Thiès Thiès AS Pikine moom dina dalal AS Douane soxna Fati wax euh, Cheikh Tidiane ñu sant ko gërëm ko moom it ci kanam bu 8 jotee dina gën a yaatu euh, xibaar yi ci biir réew mi ma fàttali leen itam euh, ne ci ñaareelu pàcc bi di ngeen am aljuma ni ñu koy defee aljuma bu jot seen dossier culture tey nag Ibou waxtaanee centre d'interprétation ba nekk ca Wannar bu wannaar pardon mu nekk ci commune bu Maabo foofee ca département bu Mbirkilaan foofu ci kanam tuuti Thierno Laurent Mendy ak Ibou Diouf demoon nañu fa dinañu wax. nag centre d'interprétation de Wannar euh, nekk foofu ca Mabo ca Mbirkilaan xam ngeen ne euh, loolu ñuy dégg cercle euh, mégalithique yu patrimoine la ci kanam tuuti dina gën a leer ci sunu bopp ba noppi itam ci ñaareelu pàcc bi jàpp leen sunu invité Baba Tandian la jiite woon fédération bi yëngatu ci wàllu basket fi ci réew mi Malick mi ngi ree xam naa confrontation soo moytuwulee wala sax jàkkaarloo bi dina am annoncé jàkkaarloo bu guddi bi bi diggante Baba Tandian la ak taskatu xibaar yi ci kanam ñaareelu pàcc bi bu leen ko wute on parlera euh, naturellement de sport mais léegi-léegi pardon ñu dalal Ibou ci xibaar yi biti réew yi